publication ni dañu ko doon jéem a rey maanaam tentative d'assassinat mhm. est-ce que tey euh, Ousmane Sonko kàddu yooyu mu yëkkati bon ñu bari ñii nee nañu day day victimiser wu ñii neen dafay politique wala am politique la am na ci sax koo xam ni euh, Abdou Karim mhm. moom nee na Ousmane li muy wax ni état xëy na su ko bëggoon a faagaal wala dara moo mhm. def publiquement est-ce que tey kàddu yooyu mu yëkkati jàppoon ni xëy na euh, daf ko wax objectivement wala da ci politique da ci rax en fait xam nga lu tax ma jàpp ne pour répondre à la question mhm. jàpp naa ni objectivement la oh, objectivement la li tax ma jàpp ko mooy jamono ji nguur gi ci ay wax lay jàppee nit ay question sax la ciy jàpp nit ku weddi laajal Hadjibou Soumaré ci loolu lañ ko jàppee woon dafa poser question Fadilou tax ñu jàpp ko ndax dafa supposer boog dafa laajte j'espère qu'ils n'ont pas tué mhm. euh, ku ci mel ni Bassirou Diomaye dañ koo jàpp parce que dafa joxe son point de vue tey lii ko def du ma ne accusation la mais il affirme que tentative d'assassinat la su fekkoon loolu amul état bi dina dem directement ci moom jël ci këram jëli cueillir ko parce que ñëpp xam nañ ni depuis lors ñu ngi xool ba ci ay procès yi ñu koy créer ñu ngi xool nan lañ koy tegee loxo su fekkoon li mu wax du dëgg et victimisation dong moo ko ci taxoon jug kon état bi dem du ma ne état bi de waaye kon police jëli ji woon na ko bu yàgg est-ce que police mën nañu ko jëli ji jàppoon nañ ko xaw a xëy na peut-être voilà. ah yow ku ku jàpp nit ku jàpp nit. Hmm. ci question. Hmm. jàpp nit ci expression moom de sa pensée. mooy ñi ma la limal ñii nii yëpp yam nañ ak Sonko Sonko gis nga la xewoon waa léegi malaaj laaj la. Hmm. procès yi lan moo ko tax a jóg. ah pour xamaa jàpp ni xëy na pour leeral wala pour àtte. wa waa léegi duñ ko woo ngir leeral li su dee dañ koo bëgg éliminer dëgg. lu tax ñoom sukkandikuwuñu ci li mu wax nii pour jàpp ko mën koo éliminer duñ ko def xam nga lu tax mm. xam nañ ni li ko wax ay preuve yu leer la yor te tamit bu ñu fàttee li fi jot am tey dañoo toj vitre am mm-hmm. mu nekk ci otoom ñu toj vitre am directement loolu lu ne mënoon na ko cee fekk waaye loolu soo ko tuddeewul tentative d'assassinat dama lay laaj tey suñu président su toogoon ci oto. Mm-hmm. ak jàmbur jóge fi fële toj vitre bi président sax day sori kenn ci membre gouvernement bi wala kenn ci famille wu membre gouvernement bi pour ñëpp ne ñu ne autorité la kenn ku faroon ci gouvernement bi suñ ko defee woon noonu ci kanamu ñëpp wallaahi ki ko def du fanaani këram te ñoom ñoo njëkk bind communiqué ne tentative d'assassinat la su dee loolu du tentative d'assassinat ñu asperger ko liquide ñu ne du tentative d'assassinat kon lan mooy tentative d'assassinat et pire ba mu nee ni dafa feebar ñu war ko yóbbu hôpital mu bëgg dem dañ koo bañaloon mu dem il a fallu mu def benn post boo xam ne à l'échelle internationale ñëpp gis nañ ko ci la ñuy doog a nangoo mu dem hôpital pour sa faire consulter ci koo xam ne dafa feebar ba sonn nga ne du génn këram te nekkul en résidence surveillée jàppoo ko amul lenn loo mën a teg ci ndoddam tout simplement bëggoo mu génn nga ne kon du génn loolu su dul tentative d'assassinat lan mooy tentative d'assassinat c'est que ñun dañuy jël mbir yi avec une telle légèreté ba pare dañuy jàpp ni nit ki da ngay ku nekk da koy xoolee sa bopp wala xoolee ko ka nga xam ne dafa faroon ci gouvernement bi loolu yépp kuñ ko tegle woon def la ko dinga nga génn ne tentative d'assassinat la ahankay tentative d'assassinat la su ko waxutoon sax ñun xam nañ ko ndax dañ koy essayer éliminer ndax li ñu def nii yépp lu ñu jot a def nii yépp ba ci bañ koy dugguloo ci pont bi bañ koy dugguloo ci tunnel bi sànni fa grenade ba pare ne ko jàllal loolu su dul tente di ko ko génne ko ci oto boobu dugal ko ci oto bi yooyu yëpp soo ko tuddeewul noonu nan nga koy tuddee promenade la woon du woon promenade donc il a raison su fekkoon day day day victimiser wu comme ni ko nit ñi di waxee kon yaakaar naa ni état bi demoon na jëli ji ko bu yàgg mais c'est parce que a des preuves te tëbul tëb wax ko du ci saa si la ko wax dafa bàyyi ba ay résultats testam génn mu soo koo wax donc il a les de ce qu'il avance mhm. ci loolu sax moom euh, Sonko ku ne xam na ni est-ce que yow tey jii Euh, am nga surprise bett na la ci ni eh, projet Ousmane Sonko Adji Sarr jàpp nañ ko date sàngam muy le 16 mai bi nga xam ni moom lu ñu def ah man dama jàpp ni yooyu yëpp peut-être séance d'entraînement la parce que gis nañu procès yi fi mujj mooy suñ ko jëlee ci côté économie ci ñaari citoyen lambda parce que mbir mi du Sonko ak état ñaari citoyen lambda ñaata yoon la ñuy indi procès mhm. dakkal activité yëpp cag-cag du bouger képp ku yor moto waroo bouger ci dëkk bi maanaam ñu stoppé carrément suñu économie dëkk ngir ñaari nit ñoo xam ne sa sont des citoyens lambda ñaata yoon donc lii ñun dañ ko jàppee benn pièce théâtrale goo xam ne peut-être dañuy ut fan la ñu mën a jëfandiku pour éliminer un opposant politique te man li ma ci gën a métti mooy tout le temps c'est sur la même personne pour lan moom rek moo fi nekk opposant moom rek moo fi nekk opposition gis nga ñoom li ñuy def nii ñoom def la promotion d'Ousmane Sonko dangay ngay seetlu émission bi ba mu commencé ak léegi. Mhm. depuis sànq ci Sonko la ñuy wax. te man damay dem plateau ba jóge fa te du ma wax ci moom. Mhm. mais c' est parce que même il font la promotion d'Ousmane Sonko. Mhm. ñoom ñooy indi actualité bi tout le temps ci muy tourner autour de sa personne ba soo ci buggutoon wax wala soo ci warutoon wax. da nga ciy wax da lay imposer nga wax ci. mën naa toog ci plateau ba jógee te duma ci wax mais la fait que ñuy indi genre fee yi mm-hmm. mooy waral saa su nekk nga ciy wax et moom ngay gën a waxtaanee sax d'ailleurs ñu bari dañ ci tiit le fait que procès boo xam ni ku ne xam na nit du certificat médical en fait du ay euh, témoignage du lan ma ne la euh, pour kaawu Adji Sarr Sonko ñun ñëpp moo tax xëy na peut-être ñun ñu euh, xam nga ñun ñëpp nous sommes sensibles ci kaawu viol alerte effectivement ñun ñëpp dañoo sensible ci kaawu viol parce que ay nit lañu man par exemple jigéen laa cas wu viol lu sensible la ci man mais imaginel tey cas boobu nga dem ba di ko banaliser parce que ñun dañ doon xaar ci soxna si mu indi ay preuve lu ci mel ni certificat médical certificat médical bi wane ni amut viol amul ñu pare ci loolu moom mi ñu wax nan la demee li mu indi comme récit benn amul benn ba ca xam ne euh, maanaam euh, yenu na maanaa li mu wax yenuwul maanaa kon moom ban preuve la indi indiwul preuve ba pare bëgg forcément procès na am procès na am ñu jàppaleeg loolu ñu jàppale te yoon def liggéeyam mooy waxuma ñu classé dossier bi sans suite wala leneen mais na yoon def liggéeyam mooy ki jiiñ su dee li mu wax du dëgg mhm. yoon dal ci kawam su dee ki ñu wax ni moo def moo def yoon dal ci kawam te daanaka soxna si sax dem na moom ba setal ko góor ki dem na ba setal ko ay audio génn na fi ñu toog benn un boo xam ne audio audio audio ci loo xam ne c'est tellement basique donc na yoon def liggéeyam. su dee soxna si moom la mu wax dara amu ca dafa war a répondre de ses actes ndax bu ñu fàtte am na ay nit yu décédé ndax moom ay mensonge parce que ci loolu yoon bi nga xam ni moom moo écarté certificat médical yoon bi nga xam ni euh, considéré wul wala kon tenirul en compte trop ñi nga xam ñoom ñooy témoignage yi ojo yi parce que yëpp teg nañ ko ci table am n'est-ce pas. te mhm. newul yóbbu ci mbir bi procès est-ce tey yow yoon boobu noonu. am nga. Euh, yaakaar kóolute ci moom. ca procès bii nii xëy na. ba ñu ñàkkee am yaakaar ci yoon bi yàgg na. te duñu taay ci di ko jàpp date bi tamit est-ce que loolu tiitaange ak njaaxare xëy na mënu ci am ci. mën na ci am bu baax a euh, baax. mën na ci am ndax euh, xamuñu lan lañ koo bëggal. wala xamuñu en tout cas. lan lañ ci soxla exactement ci ñaari procès yooyu noonu le waaye ñun suñu posture du changer mooy elle reste la même mooy lan ñun nous dison non waxuñu sax kaawu Sonko kese mooy élimination adversaire politique boobu ñu bëgg jaare sur toutes ses formes mm-hmm. ñun dañ ko contre te dinañ ko dénoncer jusqu'à la dernière énergie parce que dañoo nekk di salfaañe ak ak yelleefu doomu aadama dañoo nekk di salfaañe ak ak yelleefu Ousmane Sonko xam nga yu mel noonu soo ko waxee dañ la naan danga nga far ak moom des fois ñu ne yéen ñii ñëpp bokk ci société civile bi Ousmane Sonko ngeen ànd ngeen àndal ni ñu ko def nii suñ ko defoon keneen tamit ñu kaas ko parce que du yoon dañ ci jot seen wàll moom laa lay wax du yoon dëkk bi da ngay dem ba yow soo waxee dëgg ñu ne la da far muy dëgg saa yoo ko waxee ñu ne la da ngaa far ak diw waaye du ñu tee wax dëgg mooy lan élimination adversaire politique googu ñun dañ koy tere dañ koy bañ te dinañ ko dénoncer jusqu'à la dernière énergie su jaree wàcc ci tali bi dinañ wàcc ci tali bi su jaree xeex dinañ ko xeex surtout toutes ces nag waaye ñun dañ koy aaye te bëgguñu ko ànduñ ci. d'accord. Mhm.